nikaay bi ne fàng tey ji daal la mu rate ñëpp xëy rek euh, jàpp seen ak gémmiñ ndaxte xamuñu euh, naka la def ba daal di xalab bal ba tax Sénégal ñàkk ñaari poñ ginnaaw égalisation bile Kalidou Koulibaly ci tukka yëglekaay bi la muy xam ne daal moom mooy Sadio Mané manqué woon na leen lool ci bileek jongante bu ñu koy xayma waaye record ne na naka nekkul Sénégal cote moom moo ñàkk ndaxte Algérie tam ñoo di waa Guinée dañu ko fekk rek ba ca këram daal di koy làpp ñaari bal ci euh, benn Sud Quotidien yéenekaay moom ne na nag jamono ji dafa mel ni ndox mu sedd la ñu soog daal di sotti ci kaw Sénégal noonte sax ñàkk nañ loole ah, ji ah, ñaar ci ñàkk nañ tam loole di ah, seen nag place ku njëkk jamono ji Soudan moom mooy daal di féete ca kanam Soudan mi nga xam ne def na jéego ne ngeen di démb ca kaw pelouse bu Mauritanie jàppale nag ne loole la yëf ya daal di tëddee ne ngeen di démb Sadio maane moom mayul Aliou Cissé dara daanaka critiqué na ko maanaam ŋàññi na ko démb nag ca booru ko zone ba numéro 10 bu bi lekk tañeer la mu xam ne daal moom mooy jamono ji jot nañu daal rek soppi doxalin soppi système de jeu bu fekkente ni bëgg nañ nekkaat Sénégal ma ñu xamoon maanaam Sénégal bi nga xam ne daal ah, fu mu ne ah, télé rek daal fay def ay ñaawteef nee nañ jéem nañ def nañ seen ak kem kattan ak i combinaison ak lépp lu mu mën doon waaye yëf ya antuwut benn yoon loolee daal la daal di xamle terewul nag Aliou Cissé moom mi leen di tàggat jàpp ah, a ci ëttug Les Échos yéenekaay ñëw bi réew mi sport nañu nag jamono ji euh, ni ñu ko gisee rek gaynde yi daanu nañ léegi ni démb te ñàkkuñu dañu rek tembo ku nekk benn bal daal di dugal Soudan nag nee na coppet jamono ji euh, place gu euh, njëkk ga ci bileek groupe B la ko waral nag moom mooy ndam lu am solo li nga xam ne am na ko démb ca kaw pelouse bu Mauritanie Sadio Mané ma ngay coaché kooke dellu Cissé loole gis-gis la bu ñu mën a ne fàngate ji ca tukka la tribune sport nul ba métti na lool ñëpp jot nañ ci jële ab mer gaynde yi ñoom ñàkk nañ nag place gu njëkk ga Sénégal jamono ji fas yéene rek wutali loolee jërewu ko Mauritanie jongante la nag boo xam ne du yomb ndaxte jàpp nañ ni suñuy dëkkandoo lañ te loolee mësta yomb ci diggante ñaari réew mi leneen loo xam ne yombul bokk na ci daal loo xam ne enquête yi ni moom la xëy ne fàng ca tëm bu njëkk bokk na ci naka mbiru ko bor yi lépp mu mel ni yëf ya dafay rek gën di kawe bu ñu koy xayma gën ngaa néew ñeenti téeméeri milliards yu teg juróom fukk la fii ci réew Sénégal yoo xam ne jot nañu ko yëkkati ci marché financier international ba bu ñu koy xayma tutelle ba maanaam naka kilifa yi ñoom gis nañu seen ak bopp gis-gis bu ca tukkee moom mooy bësug professeur Lamine Mbengue jàppale nag ni jamono ji ni euh, émission bu euh, eurobond yooyu le bu ñu koy xayma ba euh, fii ci réew ko Sénégal bokk na ci daal loo xamante ne nii ab placement la ca baruka privé bu ñu sukkandikoo ci suñuy euh, naataango leneen luñ cay waxtaanee bokk na ci loo xam ne lii quotidien moom la xëy ne fàng moom tamit ak ni ñu koy gisee fii ci réew ko Sénégal lu ëpp rek juróom fukk ci téeméer boo jël ci ndaw yi daal ñoom ñoo ñooñee amuñu tous maanaam ay pauvre lañ xale yi lee euh, nekk rek ñoo xamante ni daal ñoom ña ngay dund ci ab njaboot boo xam ne daal la nguur sa koy jiital jàpp leen daal ne xayma ga yéenikaay bi toog ñett lay toftal la juróom-ñett jàppale nag ni loolee bokk na ci segg gi nga xam ne daal xëy na ne ko fàng ci xëtam mu njëkk ubbil la tribune yéenikaay ca boru ko euh, Drey Media kii di Alioune Tine moom moo xëy naka di fa joxe gis-gisam ci yorinu ko réew mi ginnaaw ñetti weer yoo xam ne euh, Diomaye président ñoom ñu ngi ko fi def na naka ginnaaw ba ñu gisee ab nguur goo xam ne agressif woon na lool jamono ji la ñuy gis moom mooy ab état pastefien loole nag moom moo des di daw bu ñu koy xayma borom àddu tey jii nii le quotidien le quotidien ci woowee nee na yore ni ko réew mi la daal moom Alioune Tine des na daal di ci wax mel ni daal jamono ji réew ko pas-pas ak Pastef la ci daal di gis Ousmane Sonko jamono ji dafa mel ni ab surcharge ci wàllu ko légitimité la la li am Diomaye euh, moom mel ni ku yore ab bor ci wàllu ko politique noonu euh, la ko euh, tey ji ci xëtuk yéenikaay bi ki di Juan Branco moom nee na tey ji nag ci xëtuk Vox Populi yéenikaay moom ji ab ma waaye tamit di atte ci lépp loo xam ne daal moom la jàppee ni ñoo ñeesee naka noon la moom xon Branco tam des na ci rek di artu jamono ji duut na baaraamu tuuma kii fi nekkoon njiit di Macky Sall waaye tamit pouvoir ba mu àndaloon ba cerewu ko France jàpp cour bu CEDEAO jàpp na daal ni jamono ji ponkal moomee la Ousmane Sonko janoon te bu fekkente ni daal jóguñu ci mënees na rek gàkkal projet am ndaxte loolee kot moom moo leen tax a jóg beneen projet boo xam ne jël nañu ko daal di ko delloo ca biir tiroir ya moom mooy ba sukk bibliothèque nationale ba bés bi la jour moom moo xëy di ko waxtaane tey jii ni nañu loo xam ne daal mbëbatoon nañu ko la ca booru Senghor atum 1960 1976 ak léegi waaye euh, Fouras daal dina xëddeen boobu ba léegi daal kenn gisu ko ca mu mel ni jamono ji euh, loolee nekk suñu ko euh, mel ñu koy gis daal dafa mel ni euh, fi ñu toll nii daal dañu nekk di daw ci ginnaawam ana nag lan moo sooxal mbir mi te desandi nañ ne gën a laaj temp ko cootu ko yëglikaay bi le point ak ci moom cootu mu njëkk nag tey jii la mu fay waxtaanee moom mooy mbiru ko transhumance gi lee ñett ci ay ñoo xam ne daal ay directeurs généraux lañu ñu woon ñoom mel ni jamono ji ngelaw la faxas na leen Pastef moom tëjal na leen ak seen i buntu Baara Ndiaye Mamadou Salif Sow ak Salif Keita ñoom ñëpp bàyyi nañ alliance pour république ba noppi euh, di piis Diomaye ak sonk waaye nag loolee dafa mel ni daal doxul benn yoon mu ñu sukkandikoo ci ñuy bokk na ci tam leneen loo xam ne daal ñu ngi ko cay waxtaanee ab vidéo nataal boo xamante ni daal a ngay euh, fësal di soo waaye tamit euh, jàmmoo koo xam ne daal dox na diggante Jibi Ndiaye ak Félix Antoine Diome loole bokk ci nga xam ne daal gis-gis gu ñaaw jot na ca tukkee wàllum cinébar la tam waaye yéenekaay moom moo cay addu nañu naka jamono ji daal juróom benn weer a ngi nii la ñu seetlu daal moom mooy gën ngaa néew jege na rek ñaar ci ko tonu cocaïne yoo xam ne jot nañu ko teg loxo xayma ba bu ñu ko defee daal mat na téeméer ak juróom fukk ci ay milliards yoo xam ne loolee noonu la ñu ko gisee mu mel ni douane yu réew ko Sénégal daal ñoom ab champion d'Afrique lañ ci li nga xam ne moom mooy teg loxo wàllu ko cinébar waaye laaj bi ci samp moom mooy naka Sénégal nu mu demee noonu daal ay ba drogue